yu jàmp yoo xamante war nañ ko war nañ ko jël en charge manam war nañ ko jël liggéey ko ci lu gaaw a gaaw muy boolewaat sénégalais yi tabaxaat li nga xamantene ci lañ doon sukkandiku pour que sénégal doon lu mu doonoon manam doon benn bopp benn euh, réew moo xamantene benn bopp la te kenn koo mën a xar ñaar te féewaloo gi fi commencé woon juddu ñu fexe ba tabaxaat lépp boolewaat ñëpp